coordinateur de Benno Bokekar Kermassar Sud. Euh, c'est avec un très grand plaisir que nous venons répondre à l'appel de l'honorable député Moussa Ambeng, euh, le coordinateur départemental qui aujourd'hui a organisé une assemblée générale. Euh, nous sommes venus vraiment en tant que responsable, mais aussi en tant que responsables disciplinés. le président Maxal a déjà donné les bases d'une unité dans le département de Kermassar et cette Assemblée générale porte le nom de, l'unité. Euh, nous, en tant que euh, coordonnateurs des communes, et surtout la commune de Kermassar Sud, nous nous réjouissons d'une telle activité et nous allons continuer également à continuer à faire de notre mieux pour que le département de Kermassar soit davantage uni. On sait nettement que dans ce travail d'unité, il faut la main dans la main. Il faut surtout privilégier l'entente il faut également privilégier la considération et privilégier également les relations entre les différentes personnes. Et là, je pense que nous l'avons compris et c'est pourquoi nous encourageons ces activités, ces, ces, cette mobilisation autour de l'essentiel pour que notre candidat Amolba puisse être élu le 25 février 2024. Wow de Matar le Sud honorable député départemental ci li xam ne tay moom moo dajale muy lan fexé ba ñun wa Kër Massar ñun le département de Kër Massar ñu andono nek ben mëna a gagner les élections du 25 février avec euh, notre candidat Amadou Ba. lima ci wax rek moy dafa jot ñu joxante loxo ñu jappalante dafa jot ñu àndandoo nek ben parce que mënu ñu liggéey té ci liggéey bi duñu jappalante ñu muñalante nangulante xam ku ne amna bu la cër bu la yalla jox ndax mënu ñu dem di liggéey di réro lol motax wote bi dañ koy vraiment rafetlu rafetlu baax di ci encourager ki xamé wote nako ndax aussi aduna il faut am ko wote nit ñi ñew bon ci ñew bi nak ñi wo ñep en tout cas ñun wa climat Massar Sud sun taxaway moy ñu ngi talal sun loxo képp ko xam da nga jog pour le président Macky Sall bëgg le premier ministre en Ba euh président le 25 février 2024 ñi ngi lay talal sun loxo di and ak yow pour que lolou mën nek yoy da la laa bëggoon ci ay kàddu sante ñep na kërëm ñep ak ñima ma tay jóge Kër Massar Sud monsieur Ibrahima Cissé le chef de protocole ak ala euh, monsieur Amadou Diop mi xam ne tey mandataire ñu ñëw ci turu Kër Massar Sud ak ñi ma fekk ñep pour wane rek suñu and ci liguey bi ak ci jappalé bi pour que Amadou Ba mëna nek le président du Sénégal le 25 février 2024. ko Cheikh Ousseynou Diouf coordinateur de la paire et de Benno Bokk Yaakaar bu Kër Massar Sud. teewaay bi tay c'est un appel bi nga xamante tey honorable député maire Moustapha Mbeng ak tous les responsables lancé nañ ko pour l'unité entre les leaders de Benno et de l'APR au département de Kermassar. Massar ñu ici wuy en tant que ndaw ñu wuy en tant que coordonnateur du commune Kermassar Sud nga xamante tey dañ fa am un opposant féroce muy Bilal Diatta nous duñ ko présenter, duñ ko présenter kenn parce que nous sommes tey bras droit Ousmane Sonko Nous am ku mel noonu mu nekk ndaw nekk vis-à-vis amuñu droit à l'erreur waruñu mën dormir ci suñu laurier motax tay tey guddeeg bëccëg muy taw muy nañ ñoy sur le terrain di sillonner di remobiliser les troupes pour mën faire face re maanaam rebaptiser waat Kër Massar nga xamanté yàgg na un bastion de l'Alliance pour la République lolo tax ñu wuy ci l'union est scellée grâce à l'honorable député maire Moustapha Mbeng grâce aussi vraiment à la réponse bi nga xamanté tey les leaders du département effectué nañ ko duñu ludul def manam top ci and ak ngi tous les responsables de ma commune qui est Keur Massar Sud ñu joxante les mains dans les mains and liguey fal ki nga xamanté le candidat Amadou Ba parce que fal candidat Amadou Ba mom moy continuer li nga xamanté tay œuvre bi son excellence le président Macky Sall bâtir surtout le ben.